jëkkalu ci jafe-jafe bi njeexintalu euh, élément bi am muy Pape Ngor Ndiaye rek bu euh, service météo euh, ganuk xibaar yi di Momar Talla Ndaw waxoon naa ko sànq ca njalbeen ga sëñ Momar ñu ngi lay nuyu di rafetlu sa teewaay. soxna Fatima ngi lay fay bu baax a baax. ngoog aménagiste nga géographe urbaniste sa xam-xam màcc jëm ci wàllum waay gis nañu ne saa su nawet dooree rek jafe-jafe yi door ci wàllum ci askan wi lan moo tax fu ci mel ni bu taw amee ñu ne Pikine Géejawaay jàpp Wakaam gox yëpp euh, ndox mi sonal leen mbënn mi lan moo waral lu ni mel. jërëjëf soxna Faty maa ngi lay nuyu ci invitation yi di gërëm sa euh, téléspectateurs yi. Mhm. Euh, li may mën a tàmbalee mooy ndox dafa am ñaari mbir yu nga xam ne bu tawee. Mhm. fan lay dem maanaam dafa war a walangaan. Mhm. mbaa mu dugg ci biir suuf si. ñaar yooyu bunt yooyu la am mhm. mais malheureusement dañu am jafe-jafe ci fànn yooyu mhm. euh, boo xoolee euh, pour mu ngaan euh, boo dëkkee da nga war a defar lu ñuy wax canalisation maanaam def ay yoon yu nga xam ne mhm. ndox mi foofu la war a jaar pour yegg euh, nga kanaan mu dem géej wala mu dem feneen fu nga xam ne di nga ko fa mën a dajale mhm. euh, loolu dafa manqué ci suñu ville yi suñu dëkkuwaay ndax dëkkuwaay du tabax kese dafa am mhm. lu ko nga xam ne mooy toogee ci koom lu mel ni ay réseau mhm. de canalisation ak voirie yi yooyu nag dafa sooxe trop ci euh, dëkkuwaay yi nga xam ne moom la ñu am ci grande ville fu ci mel ne Touba Wakam ñu ngi gis élément bi jëwriñ bi ñu dénk wàllum ndox mi di ko wax maanaam fi ndox mi waroon a jaar dañ koo mu mel ne yooyu yëpp aussi ay cause la yoo xam ne à la dina indi yeneen jafe-jafe bu weesoo maanaam jafe ci wàllu planification urbaine mm-hmm. nga xam ne dañ ko am boo xoolee ni ñuy tabaxee suñu ville yi dafay dëppoo ak ñun noonu la dëkkuwaay bi mel ak loolu la ñu bëgg dafay mm-hmm. jafe mm-hmm. Eh, boo xoolee eh, dëkk yi ci am canalisation da leen di compter wala ñi nga xam ne am nañ dëkk yi nga xam ne am na canalisation maanaam canalisation du attan ndox bi ñëw euh, loolu mu doon jafe-jafe beneen bi mooy euh, dañu seetlu na nit ñi aussi dañ ci am responsabilité maanaam ñu tabax canal ba pare nga ci sotti ay mbalit wala nga ci sotti suuf loolu aussi doon comportement bu nga xam ne euh, war nañ ci def sensibilisation bu mat a mat a mat lu nga xam ne ay jafe-jafe la ci dëkkuwaay très bien mm-hmm. sànq yaa ngi naan fii bu ñu xoolee yeneen dëkk yi niñ tabaxee dafa xaw a sooxe ndax loolu day wund ne ñoom bi ñuy parce que yéen mënu leen ñàkk wàllum aménagiste yi mënuñu ñàkk ci bu ñuy door ndax da jàpp ne kon dañ leen a boddi ci seen ab liggéey ndax bu leen ci boole woon amaana ngeen ne jaaral fii jaaral fii dina tax yenn jafe-jafe yi ñu mën cee mucc. xam nga dafa am kuréel bu yor lépp luy euh, urbanisme mooy ministère de l'urbanisme mm-hmm. am direction bu yor urbanisme ak cadre de vie. Mm-hmm. moom mooy saytu lépp luy dëkkuwaay. Mm-hmm. maanaam plan yi ñuy tabax lotissement yi ndax am na jumtuwaay yi nga xam ne moo a nekk ci dëkkuwaay. ñu saytu ko ñoom a a beneen bi mooy mhm. bu weesoo expert parce que direction urbanisme am na expert yu mag mais am na ay ñu nga xam ne ñu ngi intervenir ci ville bi mhm. di tabax ville maanaam lu mel ni promoteur yi mhm. yooyu dafa doon ay jafe-jafe yu nga xam ne maanaam ñu def ab plan bu nga xam ne ne ville bi nii la mën a tëggee nii lañ koy tëralee mais maanaam la ñu ni siroon mhm. duñ ko def maanaam ñi tam prévoir woon benn canal canal ba duñ ko mujj def bu ñuy defar quartier bi mhm. ñi prévoir woon aire de jeu espace vert bu ñuy tabax quartier bi espace vert bi disparaître mhm. maanaam jafe-jafe yooyu doon na lu nga xam ne tey jii jafe-jafe bu métti beneen bi mooy wàllum gestion urbaine euh, dañ ci sooxe bu baax a baax maanaam collectivité locale gox gee gox goxaan yi ñuy jox responsabilité yi ñu war a def lépp luy gestion urbaine war ko saytu dañu amul moyens amuñ compétence bi doy pour mën ko yor parce que dafa laaj moyen tey jii ñu ngi def ay déguerpissement di def ay maanaam toxal nit ñi loolu boo ko gisee mooy euh, gestion bi ñu war a def au quotidien moom lañ dul def dañuy xaar ba yëf yi ëpp loxo nu ñëw te boo xoolee euh, l'inaction moo gën a cher maanaam ñàkk def moo gën a cher def parce que boo defoon doo ñëwaat di jël ay milliards pour déguerpir ay nit donc doon na jafe-jafe yoo xam ne te beneen bi mooy ñu ngi koy wax ci wàllu taw parce que tey jii euh, bu tawee cent quarante millimètres ci benn zone ci diiru benn waxtu mhm. loolu amul infrastructure bu ko mën a dékku bokk na ci li nga xam ne mooy causer inondation mhm. donc jafe-jafe la mhm. euh, loolu te tey ji dañuy wax changement climatique maanaam soppeeku jaww ji euh, mu tey mu taw suba du taw wala mu xëy taw ci diirub cinquante minutes wala une heure de temps cent quarante minutes amul infrastructure bu ko dékku loolu jafe-jafe la beneen bi mooy da ngay gis site bu nga xam ne waroo fa dëkk non édificandi mais ñu bàyyi nit ñi dëkk fa loolu aussi jafe mais loolu loolu am fii ministère de l'urbanisme am service euh, urbanisme bi ci biir euh, élément bi ci Bambilor ba askan wi ñu ngi koy kaas yaa ngi wax sànq waxu promoteur nga xam ne dañuy liggéey ak waa ministère de l'urbanisme donc promoteur bi bu amee sañ-sañ ñëw tabax ci cours d'eau aussi kon dafa mel ni faay bi du ci ñoom mais ci kaw la. responsabilités yi sont partagées parce que ay mbir bu amee ci ville parce que wàllum dëkkuwaay dafa am responsabilité yi à plusieurs échelles. Mhm. dañ ko mhm. am na responsabilité. parce que moom moo war a définir moo war a planifier. Mhm. collectivités locales yi nga xam ne ñoom lañ jox gox yeeg gox goxaan ñu jege askan yu saytu gën a jege. Mhm. ministère bi ñoom itam dañ dañ ci am responsabilité mhm. a un beneen bi mooy population bi am nañ responsabilité mhm. parce que du gis fu nga xam ne ndox la ma dem di ko jënd yooyu aussi ay jafe-jafe mais est-ce que buñ ko tabaxee ba mu ba mu ba mu àgg doguma la euh, ñu sëkk ko defar ko amaana population bi xamuloon ne sax fii zone la boo xam ne waruñu fi dëkk aussi ndax léeg-léeg aussi ñu defar ko ba mu ñoŋal ko ba mu rafet ba nga xam ñun mhm. mhm. mais malheureusement ñun dañuy ñëw gis fu nga xam ne waa bërëbum ndox la war ko aménager arranger defar ko mu doon lu nga xam ne day bokk ci cadre de vie mm-hmm. mais ñun lu ñuy xalaat rek mooy dëkk mm-hmm. te dëkkuwaay doonul kër kese même ci biir ville yi dañ fi war di bay dañ fi war def ay espace ouvert maanaam espace vert rek yeneen yu nga dem ne nit ñi dinañ fi mën euh, féexal seen xool danañ fi mën aussi euh, bay parce que mbay mi aussi dafa bokk ci lu nga xam ne jamono ji ñu ngi wax changement climatique échange yooyu nga xam ne garab yi dina koy jox doomu aadama yi dafay bokk ci lu nga xam ne dana ñoŋal dund bi dana vraiment may ñu ngelaw lu nga xam ne da suñu wàllu wér gu yaram dana ci bokk te loolu boo xoolee Dakar tey ji doon jafe-jafe bu mag parce que euh, mën nañ wax ne amul garab amul espace vert mm-hmm. te loolu c'est un danger mm-hmm. et il faudrait que ñu xam ne suñu dëkkuwaay dafa war a am garab mm-hmm. suñu dëkkuwaay dafa war a espace vert dafa war a am espace ouvert bu nga xam ne maanaam day tax nit ñi mën a di am détente maanaam nit ñi di mën a coole ji nga xam ne mooy gaz à de serre bi nga xam ne mu ngi jógee ci oto yeeg usines yeeg mu mën koo capter te loolu malheureusement Dakar amu fi te jafe-jafe yi ñu ngi koy commencer vivre ci très euh, ko war a wa xam nga politique d' aménagement parce que aménagement dafa am aménagement du territoire ak aménagement urbain. Mhm. te fànn yooyu li ci am jafe-jafe mooy euh, dañ koy xaw a sooxeel. Mhm. mën nañoo tabax téere bu nga xam ne bu baax parce que macha allah Sénégal am na ay borom xam-xam yu nga xam ne ci wàllu urbanisme ci wàllu planification dinañuy maanaam def ay lu baax lu nga xam ne wane buñ ci jaaree danañ mën a planifier sunu ville. Mhm. mais malheureusement euh, dañuy du ñu am moyen pour exécuter ko correctement maanaam def ko nu mu waree soit euh, ñu détourner ko parce que tey jii boo gisee eh, plan yi da nga ciy gis yu nga xam ne lu am solo la nga ne prévoir nañ ko maanaam préparer espace vert mhm. préparer fu nga xam ne terrain de jeu pour xale yi mhm. mais tey jii bu ñuy exécuter après affaire bi day disparaître mhm. malheureusement euh, suivi bi nga xam ne moom lañ war a def parce que il faudrait que aussi lépp lu nga xam ne politique la ñu nesir ko il faut ñu koy suivre exécuter ko te loolu direction de l'urbanisme et du cadre de sanctions il faudrait ñu aussi ñun ñuy ñuy am ay sanctions ci lu ñuy def. Mm-hmm. loolu doon na doon jafe-jafe yu nga xam ne ñu ngi koy vivre. Mm-hmm. te tant que dindiwuñ loolu aussi dinañ am problème ci sunu nu ñuy dëkkuwaay yi ñu nekk. très bien laaj bu mujj bi rek euh, Momar Talla Ndao est euh, a euh, mi fi muy jaar nga jël suuf def ca wala nga an sa mbalit. Mm-hmm. sotti fa ndax itam sanctions yi warul ànd aussi ak sensibilisation wan askan bi ne fii ngay moom mooy waral. ndox mi di taa ba amaana sa kër di yàqu ndax itam warul amaale euh, sensibilisation am sanction communication maanaam ñu boole ci yeneen yu bëri quoi. foofu fànn boobu sax laa bëggoon ñëw maanaam sensibilisation parce que mm-hmm. sanction rek benn la ci pàcc yi moyen mm-hmm. il faudrait que ñuy sensibiliser nit ñi euh, maanaam lépp lu ñuy def ñu jàngal nit ñi nit dina def ay mbir fekk dafa xamul. Mm-hmm. donc il faudrait que lépp bépp politique bu ñu jiital il faut sensibilisation bi daf ci am solo mais aussi sanction daf ci am di sensibiliser du jeex da nga koy continuer di def mais mu ànd ak ay sanctions parce que am na yu nga xam ne masla dafay yàq te bëri na yu nga xam ne yàqu na mhm. ci fànn boobu maanaam masla mhm. laamiso bu nga xam ne day mujj yàq li nga xam ne moom lañ doon defar mhm. et puis ndox mi aussi euh, non seulement day indi ay conséquences ci dëkk bi ba laal fondement bi moom il faut rek mu am bërëb bu mu nekk ñu canaliser ko ndox moom foog mu am yoon te malheureusement ñun euh, préparé wuñ suñu dëkkuwaay yoonu ndox ak ndox fu muy mar a nekk pour que ñu mën a dëkk ak moom mhm. loolu doon na ay jafe-jafe très bien Momar Talla ñu lay sant di la gërëm maa ngi leen di gërëm mu géographe xam-xamam màcc jëm ci wàllum dëkk waaye ñu doon waxtaanee jafe-jafe mbënn mi ak itam naka la ñuy def rek ba ndox mi di jàll ak euh, nen la def ba indi ci ay saafara